salam alaikum, wa rahmatullah oh, man la Ousmane Dramé bu la réveil des consciences euh, soiton rek ci euh, Moussa Diop ak Barthélémy Diaz bi nga C'est ne def nañ ko ñaar C'est euh, ci xam nañ li tax ñu def ko ndax Euh, njariñal senegal mooy li la war a yëkkati cooli li ko war a loon euh, Barthélemy Dias wax na ci dëgg bu fekkee da ngay am maire gis fi nga xam ne yaa fa nekk ñu dagg fa loo xam ne euh, wari su ko daggee noonu surtout état def ko ànd ko ak directeur bi nga xam ne moo yor Dakar Dem Dikk ndax mënta sotti bu ci dakaar Dem Dikk ci directeur bi jàpput kon Barthélemy am na droit kaas pourquoi chaise bi ñu dakaar dem dëkk daggal ko waa APR kooku mu am na ci droit te def na ko beneen bi ci des mooy littéral bi littéral bi kenn ku ne xam na ne dañ koo brade ca Ablaye Wade ca Ablaye Wade la tàmbalee ba ci Macky Sall lépp lañ bradé sàcc ko daggate ko ba yéen ñëpp ku lib Sénégalais leer na la Barthélemy bu fekkee ne maire la Nerla, la côté bi nga xam mom moom la gérer ñu càppat chapaté ko batterie bi am droit jog wax amna droit jog wax te jog na wax na kon batterie wax ci littoral bi pare woñ ko wax ci Dakar dim dik, téré ba mu dag jox wa APR kon batterie mi amna droit def ko batterie mi di amna droit buy attaquer mu attaquer d'abord ki nga xam mo Dakar dim dik. te neexul ba neexul Barthélemy mën am information yëpp ki yor këyit di sëgg di signé ak di lijjanti muy directeur moo xam lépp Barthélemy mënta xam lépp kon bu ñu demee ñoom ñaar tey ba trouver une solution d'entente dama am yaakaar ne Sénégal yi daañu am la bonne information daañu ko am bu naagu rek bu ne. Moussa Diop li tax Macky Sall dakk ko 3e mandat bam doon wax dedet man na am leneen mu di rappeler Moussa Diop bokkuloon APR Macky ko woon kay jàppale ma ci ban stratégie le nek lu il faut faire des analyses deglu ko dafa dagan mu wax le cas Idrissa Seck bu len ko tekk li Idi ab satch la Idi a volé l'argent des Sénégalais il a confisqué des milliards yoo sénégalais. Ils ko moom yéen Ils la leer bu leen tëkkale lii beaucoup. aux États-Unis FBI dem ci bi rencontrer des grands criminels pour les libérer pour am informations. même des terroristes Ils ont ko accusé des ñu leen def ci avion delloo seen dëkk ngir information Mahmoud Diallo Aliou Samuel Sarr sàcc yooyu bunt ak Idrissa sek buñ ñëwoon tàllal loxo Barthélemy Dias nar a wax li am Barthélemy war leen recevoir ànd ak ñoom déglu leen inference jàll ci réew mi waa dig dañuy dem samet di neexal sàcc yi pour mën a xam nan la drogue bi tëdde ak fu wuyu bi nekk dañuy dem prison di jàngi Quand deux politiciens vont retrouver pour trouver une vérité dama koy rafetlu dafa sore Idriss bàyyil Idrissa Seck c'est un voleur sàcc la workat la waxuma waxi Idriss Seck waxi Idriss bu tax ngeen indi li. ñaar ñi muy Barthélemy ak Moussa Diom bi bu demee ba ca kanam da ngeen dégg lo xam ne bi ngeen juddoo te ko leen koo dégg te réew mi yàkkam de dégg par parloo baxut kan bok set te doxal stratégie pour meuna xam li réew mi tëddee kon asalaamaaleykum wa rahmatullah baaxut kan bokk seet te doxal. par parlo moom lu yàgg am Sénégal la yàgg am la am na fi kilifa yi yoo xam ne à quatre-vingts pour cent la ñuy wax dëgg la ak quatre-vingts pour cent ñu ngi liggéey réew mi mais vingt pour cent ba quinze pour cent yoo xam ne ay erreur de communication la ñuy def teewul dañuy dal ci seen kaw ñu dal ci seen kaw li bu ci erreur amoon euh, dañuy dal ci seen kaw xëy na nag ñoom nañ ko gisee ak ñu ko gisee bokkut. ba tax ma li ma ci séenu li ma ci séenu ñoom ñaar ah ñu bokk toog waxtaan génne document yëpp lépp leer ci bopp askan wi loolu rek la loolu képp la man loolu laa gis man xëy na kenn ku ne ak na nga gisee waaw ay kilifaa nga wax ñu dal ci seen kaw parce que de communication lañ def waaw loolu xam nañ ko waaye kii bu fekk stratégie la boo xam ne bari li ma ko développé ah, nañ leen déglu nañ leen déglu nañ leen déglu rek information yaa ngi dikk bu soobee yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullah